saa su nekk rek ñuy organiser li nga xamante ni moo di manifestation saa su nekk rek ñuy mobiliser li nga xamante ni moo di jeunesse bi Ousmane Sonko pour l'instant def na fi beneen jaloore bi nga xamante ni nañ ko joppaat di wax ay ati at parce que boo xoolee li nga xamante ni moom la ki démb le 12 donc nekk na ay fee bi nga xamante ni euh, wax dëgg yàlla gars yi kontaan nañ si te Ousmane Sonko fépp mu wootee fees del lay def ci noonu nag la ñu bëri di gisee li nga xamante ni moo di euh, pouvoir Ousmane ci Sénégal donc Ousmane Sonko pouvoir am na ñeneen ñi fii suñu réew dépassé na yenn politiciens yi donc ci noonu nag la ñu bëri di euh, gën a fonkee li nga xamante ni moo di Ousmane Sonko en temps aussi fonk Pastef donc mais Pastef nag pour l'instant li ko gars yi di waxee dinañ carrément ñu bëri ñi ngi nekk biir Pastef ñoom seen euh, bëgg-bëgg rek moo ñu fa teg mais li nga xamante ni moo di euh, bëgg-bëggu Ousmane Sonko wala projet Ousmane Sonko ci noonu nag la ñu bëri di tontee li nga xamante ni moo di ab euh, validation boobu ñu ne carrément Ousmane Sonko lépp nu mu mënti mel bëgg nañ donc ni tënk nañ ko si li nga moo di manifestation démb bi ne nañ carrément Macky du mës a doon li nga xamante ni moo di président de la République troisième mandat mandat duñ ko fi bañ si muy réew donc si loolu nag la ñu bëri di sukkandiku ne carrément kon pour l'instant la continuer donc c'est seulement la lutte qui nous libère donc si loolu nag la gars yi di tënku ba léegi nii parce que suñu réew dépassé na fu ñuy delloo ginnaaw dépassé na tamit fu ñuy ñëw di ñuy woon lépp li nga xamante ni moo di euh, li ñu gis mooy jaay doole donc nag loolu nag la gars yi bëgg mu deñ mu dagg si suñu biir réew moo taxit Ousmane Sonko saa si wootee di nga gis ñi nga xamante ni dañuy bàyyi seen liggéey bàyyi seen lépp ñëw teewee ko parce que xam nañ carrément Sonko bu doonee président de la République yi nañ kontaan Sénégal yi nañ bëgg jaa ngeen jëf dañu wéy di abonné bi cross bi képp kuy patriote na nga activer cross bi parce que fi ngeen amee information yu wóor te wóor jaa ngeen jëf.